livre nga xool xanaa livre bi boo ko jaayee cinq mille ñaata exemplaire nga jaar fa riche ba faw nga naka lañ koy waxee nga ut maison d'édition bu la gunge waaye dañ lay gunge dañ ko soxla ci àddina bi jeex na kon boo dañ koo soxla ci àddina bi mango très bien du loolu xam nga ku mel na man ku mel na bu dee arab yi dañuy duggante ci wàllu médecine traditionnelle waaw la téere boo xam ni hmm. mu ngi tudd auzubillahi mina shaytaan rajim xaw naa ko fàtte bopp bi xale yi dañ may wax ni nekkatul original waaye euh, rahma fii tibbi wal hikma rahma fii tibbi wal hikma ci affaire faj lay wax mais neuf cent onze la borom faatu woon ñu ngi ci mille quatre cent et maanaa <laughs> ñaata téeméeri at la livre bi am waaye waxuma loolu ki nekk fii université wala foo mën a ne. waaye ministère bi nag boo fi liggéey waaye am na loo xam ne yaa ko moom. jëlal ñebe nga def principe actif yi ak la nga ca xam ci ay baax baax. Baye Demba ki nga xam ne yàlla lantin soble. noonu nga jàpp wala plante yi nga def ko livre nga xool. bay dem jaayal benn bu nekk 5000 francs rek. mami tëjël loolu. ki nga xam ne dafa toog jërëjëf euh, Faye. Mm. ki nga xam ne dafa toog. buuru yàlla dugal na ko xëy na ci borom kër goo xam ne nguuraam demewut noonu. te mënagut a egg si ci dem ba wala xëy na lam yor jotut wala dara xam nga loolu sunu waxtaanu rajo bala daan doon looy nee na woon buñ ci dugg. lan la ko Baye Demba mën a baaxee loo xam ne bu fëkkoon léegi rek mën na ko am jàppale ci boppam ba ba muy mën a yegg si. c'est-à-dire. poobar bi. bu ma ken woo téléphone di ma ko laaj ku may woo woo fii parce que bugguma ko yàq sama liggéey bu ma fi mhm. jógee ku ma ci wo duma ci wax mhm. wala nga woo ndooy baan mhm. <laughs> yow xanaa xamoo ni boo Saint-Louis wallahi soixante-huit lañ ma ko jàngal Saint-Louis benn pël buñ doon wax Demba ñojjo moom moo ma ko jàngaloon soixante-huit ak léegi ñaataat la jël nga poobar bu fere nga wol ko ba mu nekk sunguf mais boo defee salawal sa deuxième nga coppati ci poobar itam am na bu ñuul am na bu bu wert bu mu ci mu ci munti doon très bien principe actif melul ko mboq mboq bu weex bi dafa bari suukar waaw waaw bu xonq bi moo gën a néew waaye dama ni poobar bu weex ak bu ñuul mhm. poobar plante la bu bare xaalis ba nga xam ni mhm. ñi indi conteneur u poobar Sénégal sax dañ koy wàññi bariwul de poobar men léegi noo koy def ci noo koy def nga tuj nga wol ko xam nga nun bi nuy xale sañ Babacar déglu dafa amoon machine yuy <laughs> wol booba bul jàdd bàyyi la lay déglu ndoy baan bi xam na vie nga ne am na machine yuy wol poobar ñu doon def nii waaw ba tey am na waaw yooyu nañ koy jënd nga defar poobar bi dindi pëpp bi ba mu set mu des yu fere yi nga riij ko ba mu kii boo toggee selewal naan. deuxième bi fekk gone yi dem. yoo koy coppatil kuddu Nescafé bu ndaw bi yaa boo ko naanee tey naan suba di nga xam sa dose. d'accord est xam nga ni boo ko defee ci deuxième bi. Mhm. da koy aromatise day xeeñ neex. waaw léegi. loolu yaa ngi may dégg am na ku ne ci saa si kuddul naan ataaya ndax mën na koo def ci café waaw. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam lañ ma jàngaloon loolu laa ah, xam. waaw nag. mu boppam ataaya rek. waaw du loolu. ataaya jigéen ñëpp dañ ko war a naan. ndax day tax doo am cancer buti ah jigéen ñëpp. man kay yor naa ci ay recette du ma la wax lenn loo xam ni amaluma ko base. macha yor naa ci loo xam ni université laa ko jëlee woon. Ah. Dakar. bi ñuy tabax juma université yàlla dogal ci bibliothèque ba laa ko fore woon far mu amal ma njëriñ muy ataaya. Uh-huh. ataaya dafa bari vitamine E. antioxydant la day dindi cancer jigéen lu mu yambare yambare war na di naan ñaari kaasi ataaya par jour ndax ne léeg ataaya gu bare dafay wàññi dafay indi euh, naka ñàkk rek nun koy waxat anémie anémie waaw du dëgg waaw na nañu set nañu principe actif yi ataaya ana lu ci laale lool léegi nag boo ko defee ci deuxième bi nga toggaale ko ba mu ñor uh-huh. xiimal jox ci sa àllaa ji rek kaas. d'accord tout cas bu xawee baax. Hmm. du génn saak billahi keroog ba ma ko waxee am na ku ma woo ñu ma woo am pagaay ni su xawee baax. maanaam góor gi bu xawee tane di loxoloxal tuuti. mu defaral ko ko. <laughs> très nga jox ko mu naan. te aussi ñu bare ñi nga xam ni moo tas yi comme li ma la waxoon. Mm-hmm. seet naa ko tribunal ba. Mm-hmm. mooy ñi gaaw a yegg rek. poobar bi da cee baax. très bien xam naa dina dinañu <laughs> te loolu fekk nañ ko ci maam yi. bu mhm. njëkk moom mag yi. maam yi dañoo bari woon bagage dañ daan def poobar. Mhm. très bien jamono bi médecine euh, moderne amul woon ñun ñëpp xam nañ ne médecine traditionnelle moo fi ne woon. te xam nga lu may jaaxal ba tey waaw. Saint-Louis dada sedd ba buñ doon yéeg pont bi suba teel da nga sa gëm gi des. dëkki Marie Madeleine Diallo. waaw waaw. Marie Madeleine bu dee mu ngi dund war naa xam li may wax. bu baax yal na fi yàgg te gis nga doomu poobar bi. Mhm. lañ doon yëy. mu jox la énergie nga tàng. waaw ba liw bi nga def këkk këkk këkk nii. waaw foofu buyel moog daal doon taxaw. waaw riandre le bon rek. bien man de xam loolu boo ko defee. waaw da ngay am jàmm. waaw deux. ñu mm. nuy jàng gànnaar alquran. Mhm. booy lox naar xaruur la koy wax. day jël doomu poobar jox la ni la yéyal. très bien boo yéyee rek nga am énergie. kon jigéen bi kon boo guddi géen bu fekkee ni mu nga googu da ngaa xaw a wala leneen. waaw mais boo defee kaasu ataaya bu saf poobar rek mu jox la énergie. très bien poivre en fin de compte gis ngeen ko soxna yi. ndax xam boo waxee poivre da koy tubaabal neel poobar. poobar waaw ma ni kon boog Mia jëlal boobu poobar. <laughs> jekki baax yi jàkkaarloog ñun. sawar noonu te xarañ seen biir sawar loolu te xarañ seen biir kër macha allah gànce gàcce ma noonu lañ koy waxee. Mhm. ay jàmbaar ngeen gis naa ci sax jigéen joo xam ne ndekete yow la mu daan def baax na ndax dafa bëgg lool suppu yeel te bu ko toggee itam da daan jël doomu poobar yi exprès. sànni ko ci kon amul ngaañ mu mel ni amul ngaañ bu mu ko sànni na ko ca toggaale mu na ko te bay waaw <laughs> kon ba que doomu poobar bi boo ko sànnee ci biir da naan ba yàgg nga yëy ko waaw waaw waaw loolu la waaw foo ko xam du xam ngañ yàgg suub la. Oh. wallaay. <laughs> kon kay toj ko rek. mais doyen tabaarakalla macha allah ci yow. macha allah loolu may ma tuuti loolu am na njëriñ ci borom kër. Uh-huh. beneen bi. Mm. da ngay wut rapport. nga jël carotte. nga râpé ko. rapport mooy mooy. moo dendo moo dendo grattoir. mooy joosu. waaw waaw waaw joosu la ko wolof di wax sunu maam yi dañ daan joos guro. ah jël jël. waaw potu Nescafé bi bënnat ko. bënnat ko di ko joos waaw wax nga dëgg. Ah, nga joos ko waaye maa ngi jaaralaale sama benn sëriñ yu bambara bi muy tuub. ndax la nga wax de fekk na baax itam ci bambara yi sopp nañ ko lool. waaw amul werante. ba muy tuub. <laughs> après la tuub ci sunu waajur. <laughs> waaw danaa toog boo waxee mu ne nii ala son nii ala maa sonto. nii ala son naa